Assalamualaikum semoga gars, j'espère que vous allez bien. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Fukki bakkan ak ben rot ci ab accident demb ci bori Louga. Ak ay blessé yu bari. Ci Sara ya ben camion it saran fa bom ñetti bakkan. El Malik Ndiaye dal ne buñ fi tambalé appliqué code de la route bu bes bi ngir bu ben sénégalais ñew nan nañu dawal yermandé ak nañu jappalé nit ñi parce que lu ci bari ci li xew ci accident yi talibi rewandé la ah waaw kay 402 ndaw ñoo nekkoon ci ay gaalu loo ca doon def Barça mbaa Barsaq marine nationale intercepté leen teg leen loxo wàññi leen képp kuy jël sab xaalis di ko def ci ay gaalu loo jàppal ne daanañ la jàpp nga perte sab xaalis musiba naaru laay la. président de la république Bassirou Diomaye Diakhar fay wax na ñaata la am moom président de la république bu Sénégal bi bari nay bor lool lim yoreel banque waaye mu ngi fay ndànk dànk million millions 800 lañ koy fay weer wu dee am na kër fii ci Mermoz gu ñu xayma cib xaalis am na it ay tool foofa ca Sandiara ak yooya waaw président daal euh, président bu pauvre lañ am waaye bu riche ci ay affaire yu suuf ak yooyu waaw déclaration de politique générale bu Sénégal moom moo tere ay milliards yu bari dugg te Ousmane Sonko la ñuy néggandiku muy néggandiku waa euh, assemblée nationale néggandikoonte yaa ngi bëgg a bëri foofa loolu temps waaw euh, Kaolack Domitex ka Serigne Mboup jagal na ab usine boo xam ne ci wàllu coton la yëngu te war naa jël quatre mille jeunes gàcce ngaalaama jokkoo njal foofu baax na léegi sama question mooy Aliou Cissé du trente millions lay fee président quatre millions huit cent ah man de course laa war a nekk président moom baax na rek.